Bonjour, bonsoir, assalamu alaikum, Sen Mobile TV. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire des photos illusions. Si euh, vous waxee ay photos illusions, je vais photo yi ngeen photos gis temps yi réseaux sociaux comme ça vous jël une garab wala une nature vous def ci euh, photo boo xamante ni boo vous xool sa vous wala nga mel luy fermer sa bët image u nit ki réel la lay jox te loolu lañ leen bëgg ñëw tey wan lañ koy sans plus tarder je vous invite à abonner et activer la cloche de notification léegi dañ leen won exemple de photo yi comme exemple photo bi ngeen di gis ni. photo bi bo leen xolé bii photo Ousmane Sonko la mais bo leen xolé bu baax da ngeen di gis ni genre nature la ci ay garab la nek genre benn genre euh all bo xamanteni ay garab la ci biir fofu nak lañ dugal photo bi ba mën la jox photo Ousmane Sonko bi ni. Bo leen xolé amna amna yenen photo exemple ñu wan leen photo bi ngeen di gis ni bii bo leen xolé ay genre garabu koko la gis ngeen ñu def ci benn photo boo leen xoolee bu baax boo mel ni kuy fermer sa bët wala nga mel ni kuy catal da nga gis photo nit ki rayal dem que garab bi ngeen di gis nii c'est la même chose am na benn photo artiste boo xam def nañ ko ci mais boo leen ferme seen bët da ngeen gis photo bi temps yi photo yéen a ngi koy gis lu bëree bëri ci réseaux sociaux boo leen xoolee photo Ousmane Sonko ma leen doon wan sànq photo rayal bi moo nekk nii photo illusion bi moo nekk nii bi nga xamante ni moom lañ def montage bi tay lii lañ leen bëgg ñëw tay wan leen nan lañ koy defee oui dañuy dugg d'abord wan leen nan lañ koy defee si fin vidéo nañ leen wan application bi boo leen xoolee pour ngeen def ko c'est facile boo xasee ba ñëw nii ci application bi da ngay xaar publicité ñëw jàll nga bës ci kaw suivant après application bi am na euh, fonctionnalité yu bëree bari yëpp ay fonctionnalité yoo xam ma ngeen ko utiliser ci application bi mais fii ko tey dañuy ñëw tey juste pour wan leen euh, illusion yi photo yi boobu fan la concerné mooy maanaam ci kaw fii nii boo leen duggee ci application bi rek ci kaw fii ngeen di ñëw ngeen bës boo leen ci bësee maintenant da ngeen di xaar boo leen xaaree gis ngeen jox na leen li nga xamante ni mooy ay exemple exemple bi moo nekk nii léegi da ngeen di bës si kaw seen album exemple ñu jëlaat photo ndaw si ngeen di gis nii ku jigéen kii ñu jël photom pour mën a def affaire bi nga xamante ni moom lañ leen di wan sànq léegi bu ñu bësee ci photo ndaw si dañuy xaar léegi bu ñu daf ñuy traité li nga xamanteni moy nature yi nga xam mën nañ ko def pour photo ndaw si nek illusion si nature bi boo leen xoolee am na eh, nature bu ma njëkk woon moy bi ngeen njëkk gis ni buñ jallaté gis ngeen yu baree bari gis ngeen yépp ay nature la gis ngeen fi fu ma neex rek bu ma neex mën naa ko sélectionner photo ndaw si da ci ab si gis ngeen fii exemple wala fii gis ngeen fu ma sélectionné fii nii rek photo ndaw si dina ci affiché gis ngeen ko nii photo yi ngeen gis ni yëpp désert beeg fépp fu ma sélectionné rek photo ndaw si da ci affiché gis ngeen yéen nag yéenay xool xool xool xool ba fu leen neex gis ngeen ngeen xool photo ki nga xamante ni daal moo leen neex léegi ngeen dugal ko photo ki nga xamante ni mooy mu nga bëgg a def montage gis ngeen lii lañ koy defee c'est facile ay nature la ay juma fépp lépp fi am gis ngeen gis ngeen ay boulangerie yëpp mais les dañuy jël premier premier image bi premier image bi jël nature bi comme bi ñu jëm photo bi vous boko une jël da ngay ñëw ba ci image bi image illusion bi nga si kawam si kawam gis sélectionné flèche bi ngeen gis ni généré en bas généré maintenant vous patienter li nga escale nuspas, menten Maintenant, vous cliquez en haut sur le quoi. Après avoir cliqué cela, vous patientez, ngeen xaar. Gis ngeen photo ndaw si nu ko def. Gis ngeen mu ci kaw ni. Gis ngeen photo bi ci biir nature bi la jël dugal photo ki nga xamanteni moy photo ndaw si. Gis ngeen ko bu baax. léegi boo leen ko bëggee télécharger da ngeen di bës save boo leen bësee fii automatiquement daf mu dugal ko li nga xamante ni mooy seen galerie léegi dañuy patienté léegi lii lay def comme genre publicité ak ay kii léegi da ngay bës fii nga xamante ni mooy ci croix bi après léegi ngeen xaar ngeen cliqué waat gis ngeen enregistré na ko ci li nga xamante ni mooy galerie bi ñu génnaat i dem boo ko bëggee def tamit ci beneen nature da ngay ñëwaat rek la même chose nga xool fi nga xamante ni bëgg nga ko fa def gis ngeen fi nga xamante ne rek xool nga bëgg ko fa def léegi nga bës exemple ñu bëgg ko def ñu sélectionné waat beneen mu nekk deux montage après ñu wan leen résultat bi après avant ñu leen wan appli léegi ñu bës fii nii ñu bës li nga xamante ni bii nii ñu bës photo bii pour def montage léegi dañuy bës sélectionné bës fii en bas général pour mu générer ñi nga xam mooy photo mu defal li nga xam mooy publicité maintenant ñu cliquer en pour passer li nga xamante ni mooy publicité bi gis ngeen photo ndaw si mu ngi nii gis ngeen nature bi ay animaux gis ngeen désert bi photo ndaw si moo nekk ni lay ñu bës fii séew lay ñu bësaat fii nga xamante ni mooy croix bi lay ñu bësaat séew enregistré na photo bi c'est assez facile c'est comme ça nii lañ koy defee yomb na bëgg a dee léegi ñu xool résultat bi gis ngeen léegi dañuy dem ñu xool résultat bi gis ngeen résultat moo nekk ni gis ngeen photo bi photo ndaw si moo nekk ni bi njëkk a def moo nekk ni léegi photo photo benen bi mo nek ni bo doon xoolee photo réel bi mo nek ni photo réel mo nek ni léegi photo illusion yi ñoo nekk nii gis ngeen photo ndaw ci bo doon xoolee bu baax gis ngeen ko ni bo doon xoolee bu baax photo ndaw ci da ngeen koy gis bo doon xoolee da ngeen gis ni mo mo nek ni bo doon xoolee bu baax photo mo nek ni gis ngeen photo bët yeeg ki yëpp ñoo nek ni gis kanam bi j'espère que comprendre ngeen daal affaire yi application bi ngeen lañ leen won. boo leen bëggee application bi c'est facile il suffit juste ngeen ñëw si li nga xam ne mooy seen Google Play Store wala Apple Store ngeen cliquer ci ba leen cliquer maintenant qu'est-ce qu'on va faire da ngeen ñëw ci barre de recherche bi léegi lan ngeen di bind eh, da ngeen di bind ID de division liste Diligent de divi euh, ID de division Diligent wala nga bind photo une illusion bobine une photo illusion avez une application du moins désolé ñu bind euh, photo illusion photo illusion vous leen ko comme ça application monnaie qui mais lii mooy tour application bi AI de division d'illusion vous voyez monnaie que est bi bien. Voyez, AI de division division. Monèque, nek ni, photo image bi ngeen gis am qui photo photo waa ji ngeen gis application maintenant da pouvez télécharger après avoir téléchargé les gens normalement.